Serigne Mahmoud Fall Serigne Mahmoud Fall mi ngi feeñ jamono ci atum 1894 ci dëkk boobu ñuy wax garag Garak nag mi ngi ci suuf si nag di Mauritanie ci wetu dëkk bi ñu tudde Rossa Mauritanie juróom-ñaari kilomètre nag moo dox nag ci seen diggante ci dëkk boobu nag di Garak nag fa la Serigne Mahmoud Fall mi feeña jamono di doomu soxna Roqee Ndëri faal ak Serigne Tallop faal moom bi mu feeñee jamono ci dëkk boobu nag di waa juróom Serigne Tallop Fall Ndëri faal nag lu ko tuddee ñu gën koo xam ci Serigne Mahmoud Fall moom Ndëri Fall mii nag am na ñu bokkal soxna roqee ndëri faal ak sëriñ tolob faal ñu mën cee ràññee sëriñ buuna faal ibnu soxna roqee ndëri faal ibnu sëriñ tolob faal ak soxna xaana faal bintu soxna roqee ndëri faal bintu sëriñ tolob faal ak moom sëriñ ndëri faal ñu gën koo xam ci sëriñ mahmuud faal ibnu soxna roqee ndëri faal ibnu sëriñ tolob faal bi mu matee dal alxuraanul karim waajuram sëriñ tolob faal nag moo ko dalal alxuraanul karim ci dëkk boobu mu feeñ a jamono nag di garag ba mu mokkale itam nag alxuraanul karim waajuram itam nag moo ko jàngal ku géejoo géeju itam ci wàllu xam-xam moom doomu garab yi nag di sëriñ Ndëri Faal sëriñ Ndëri Faal mi ñu gën a xam ci sëriñ Mahmoud Faal ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko tudde Mahmoud Faal ginnaaw bu mu ñëwee ci loxoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñaar ñi bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen muy sëriñ Buuna Faal sëriñ Buuna Faal nag laataa muy taxawal kër génn na àdduna ci 1920 ci loxoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Seexul Xaadim moo digle nag ñu denc ko njaareem dem kër sëriñ siidi yoro sëy nag lañ ko jébbaloon ci dëkk boobu nag di garag ba tax na soxna aana faal mook sëriñ siidi yoro sëy mi am nañu njaboot ñu man cee ràññee soxna mariama sëy lii nag mooy njaboot gi bokk ak sëriñ mahmoud faal waajur wu góor ak waajur wu jigéen laataa ñuy xuus sax ci mbirum sëriñ ndari faal mi ñu gën gënoo xam ci sëriñ mahmoud faal ñu wax leen ci dëkk boobu mu cosaanoo di garag dëkk la itim nag bu nekk nag ci muritani dëkk la itim nag bu soriwul dara nag roosa muritani juróom-ñaari kilomètre moo dox diggante waaye dëkk la boo xam ne boo xam ne itam nag dëkkub la ndax bari na ay sërif ak i wàlliwu nag yu fa feeña jamono ci dëkk boobu nag di garak dëkk la boo xam ne itam nag Cheikh Sidiya Baba ku fa bari woon ay tànk la ndax melow dëkk ba ak ay taalibe nag yu mu fa am ba tey dëkk boobu nag di garak dëkk la boo xam ne nii nag ay kaang fóori rek ñoo fa feeña jamono dëkk la boo xam ne nii itam nag kër gu ne itam nag ëttub alxuraan ma nga fa dëkk boobu di garak nag magam itam nag sëriñ Buuna Faal bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam fa la feeña jamono dëkk boobu nag di garak kenn nag ci ay doomam nag di sëriñ Ndari faal ñu gën koo xam ci sëriñ Mahmoud Fall mii ñu fa yéenee waxtaane feeña jamono ci dëkk boobu nag la jànge alxuraanul karim ci ron waajuram di sëriñ Talob faal ba géeju loolu itam nag ci wàllu alxuraanul karim mu wéy nag des nag ci ron waajuram ba ci atum 1920 la ko sëriñ Touba Xaadim Rasool nag woolu ci njaareem ngir itam nag mu wuy si ko ginnaaw bu mu ñëwee nag ci 1920 ci njaareem ba ni mu génnee àdduna ci atum 1968 mi ngi ci loxoy ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasool ñu wax leen sax sëriñ Mahmoud Fall taal nag lan moo ko indi ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ginnaaw bu mu feeñee jamono ci dëkk boobu nag di garak ci réew moomu nag di Muritani magam ju ñuy wax sëriñ Buuna Faal la am kenn nag ci kilifay garak yooyu ñu déggoon ko baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag doon ko seet si nag ci njaareem keroog nag ba kilifay gànnaar yooyu nag doon ñëw nag ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci njaareem lañ àndoon nag magu sëriñ Mahmoud Faal bi nag di sëriñ Buuna Faal ginnaaw bu sëriñ Buuna Faal ñëwee njaareem nag ci seet si nag guñ doon seet si ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim liggéey woon nag ci njaareem mu nekk fa nag jànkatu xasida nag ci ron ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moom sëriñ Buuna Faal sëriñ Buuna Faal moom nag moo wéy nag nekk nag ci loxoy ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba ci 1920 mu génn àdduna keroog bi mu génnee àdduna sax ci atum 1920 lu yéeme sax xew na ci ci génnuk àdduna ak sëriñ Buuna Faal boobu soo delloo ci téereb sëriñ Mouhamadou Diop Dagana ma ngay seede keroog di wax ne ku baax ki sëriñ Tuubaa xa Rasuul génne na am na ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi itam nag ñu dencaale ko nag sëriñ Buuna Faal mii ma ngay wax itam keroog ne armeer yi nga xam ne nii sëriñ Buuna Faal ci la tëdd képp koo xam ne nii jiitu nga ko fa muy wala jigéen da nga yëg ne tey jii daal am nga gan gu mat gan sëriñ Mouhamadou Diop Dagana nag mi ngi wax nag ci téere bi di wax ne bisub keroog ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mi ngi koy misaal ne gan goo xam ne nii dafa ñëw nag seet si nit ci ab dëkk teraanga yañ koy teral képp koo xam ne nii sa yoon nekkul woon ca ngan ga xéewal yooye nag boo ca lekkee laataa gan nga di xam neexaayu ngan gi yow sa bopp sax da nga mën a seede nag nag neexaayu ngan gi mu ne tey ji nag sëriñ buuna faal ci tëdd googu mu tëdd nag ci armeer yi njaaree képp koo xam ne nii nag fekk na ko fa loola da nga ko mën a seede ci moom santaane itim nag ñu denc ko nag ci njaareem ci 1920 ñu teewlu nag li ci sëriñ Mouhamadou Diop Dagana bind ci seede nag gu mu seede nag jëlee ko nag ci ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ci magu sëriñ Mahmoud Fall bi di sëriñ buuna faal nekkoon itam nag ku jege ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul te génn àdduna ci 1920 wa minha ma axbara bihi algannaariyu min anna allaha tabaraka wa taala aataahu min al ujuri maa yafrahu biha ahlu tilka al maqaabiri rijalihim wa nisaihim farahan lam yataxaddam lahum wala yanqati anhum baadu bi sababi qudumihi ilayhi ka farahi qawmin xadima alayhim dayfun karimun huya lahu min anwaahil qira maa laa yuxsa wahdahu huwa allasi yafrah wa axraja lahu qamisan wa axbara anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam huwa allasi kasaahu iyaahu ginnaaw nag bu magam jooju génnee àdduna nag di sëriñ Buuna Faal la sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag wax ne sëriñ Buuna Faal nag am na kenn nag kum bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen nañ dem nag ci dëkk boobu mu cosaanoo nag di garag jëlil koko ginnaaw bu mu ñëwee njaareem ba nuyonte ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasool ba noppi sëriñ Tuubaa xaadim rasool nag mi ngi koy laaj nag naka nga tudd mu di ko wax ne nag ndëri faal nag laa tudd sëriñ Tuubaa xaadim rasool nag di ko wax ne nag ndëri du aw tur yow max Mahmoudan nga tudd di ko wax ne nag kun Mahmoudan nekkal nag kuy sant loolu moo waral nag ndëri sëriñ Tuubaa xaadim rasool nag soppi ko tudde ko Mahmouta moom sëriñ Mahmoud Faal miitim ku sëriñ Tuubaa xaadim rasool woon la boole woon na ko nag ci ñi koy bindal defoon na ko itim nag mu koy jàngal ay xasida ki sëriñ Mahmoud Fall di doog a ñëw ci loxoy ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasul sëriñ Mahmoud Fall nee na xasida gu tudd yaasal wu jóodi la ko sëriñ Touba Xaadim Rasul njëkk a jàngloo waaye keroog bi mu ko jàngee ba noppi nag baat bi neexul la ko seexul xaddiim woowaat ba mu ñëw mu ne ko ŋaal mu ŋaam mu tufli nag ci gimiñ gi ne ko continuel nag deel jàng moom sëriñ max Fall nag daana wax ne bisub keroog daal la yëg ne xamaat na lu baree baree baree bari baat bi nag macha allah suñ boroom nag defoon na ci nag taw féex jàngoom mu daa jàngal sëriñ Touba ay xasida tax na itim nag bari na ci doomu mag ñi ñu feeñ jamono ci diggante bi sëriñ Mahmoud Fall ñëwee njaareem ci doomu mag ñu baree baree bari tudd Mahmoud ñu ci baree baree baree bari ci Mahmoud yooyu sëriñ Mahmoud Fall nag la leen sëriñ Touba Xaadim Rasuul tuddee ndax cofeel nag gum amoon nag ci sëriñ Mahmoud Fall mii mu wéy nag des nag ci ron ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul di jàng ay xasida di bindal ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba ni sëriñ Touba Xaadim Rasuul génnee àdduna ci atum ak set mu jël léppam nag jébbal cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko xoole xaadim rasuul def ko ab sëriñ ak kilifa wéy nag des nag ci njaareem googu waaye mujj gi nag jóge na njaareem ñëw nag daaru salaam ci kóllëre nag gum amoon nag sëriñ muudu maamun mbàkke moom maam cheikh anta mbàkke ndax bëgg ay xasida ak taamu nag ak njàngam nag gu sëriñ muudu maamun mbàkke nag amoon ci moom bi mu nekkee daaru salaam ci loxo sëriñ muudu maamun mbàkke tudde na doom sëriñ muudu maamun mbàkke tudde na doom itam nag soxna faati mbàkke di rakk sëriñ muudu maamun mbàkke doom Moodu Maamun Mbàkke ci Daaru Salaam Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke itam woowoon na ko ci bayti wutaloon ko fa néeg itam nag ci bayti ngir itam nag mu jàngal ay xasida Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ba tax na doomam ji ñu tudda Sëriñ Cheikh Xari Jaw ci bayti googu la feeñe jamono ci bi mu fi nekkee nag ci ma Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ginnaaw bu fi seex ma Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke bàyyi koo nag la jël léppam nag jébbal Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke féeteeg Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke mu dem njaareem nag fekki Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke moo ko wutal kër njaareem fi tolloo kër soxna faati ja mbàkke mu wéy nag nekk nag xaritu cheikh dul basiir mbàkke nekk itam nag wóolla réew cheikh mamadul basiir mbàkke ba tax tudd na ñaari yoon doom cheikh mamadul basiir mbàkke ngir ko lëre mu wéy nag nekk njaareem nag ci roon cheikh mamadul basiir mbàkke ndax sëriñ mahmoud fall daana wax ne li tax nag mu dellu njaareem ci loxoy cheikh mamadul basiir mbàkke dafa xam ne njaareem fa la sëriñ tubaa xaadim rasul nekkoo nag moom njaareem itim fa la magam tëdd di sëriñ buuna faal lu ëpp itim nag ay kóllëreem yum nekk loon ci ëttub ku baax ki sëriñ tubaa xaadim njaareem la ñu nekk kon nag moom njaareem la xam loolu moo waral nag bi fi cheikh mamadul moustapha mbàkke bàyyi ko mu dem njaareem féete fa ci ginnaaw cheikh mamadul bachir mbàkke cheikh mamadul faadal mbàkke nag moo ko fa jële ci 1965 bi ko wax ne nag ñëwal tuubaa ginnaaw bu mu ñëwee tuubaa itam nag lim doon defal sëriñ tuubaa xaadim rasul doon ko defal cheikh mamadul moustapha mbàkke doon ko defal cheikh mamadul bachir mbàkke doon ko defal sëriñ moodu maamun mbàkke di yëkkati ay xasida loolu itam nag la doon defal cheikh mamadul faadal mbàkke ba ni mu génnee àdduna ci atum 1960 1968 bi mu ñëwee Touba Cheikh Mamadou Bassir Mbacke itam nag moo ko fi may kër ci Touba Daarul Minan kër gi moo jàkkaarloog station 28 bi ci kër googu itam nag la génnee àdduna ci juróomi fani safar ci atum 1388 ba na itam njàngum xasida moom mu doon amal ñu bare bare bare bare bare bare am na ceeg ñoom ak lëre ngir bëgg guñ ko bëgg ngir xaadim rosool nag bëgg gum ko bëggoon laataa nag mu fi bàyyi ko ci atum dajale nag mbooleem njaboot gi mu ñeneen ñi nga xam ne nii nag ñoom ñoo koy wuutu nag bu ëllëgee man cee sukkandiku nag ngir xam njabootug sëriñ Mahmoud Fall moo xam soxna sum dëkkoo woon moo xam doom jum ci am soo delloo nag ci mbindum sëriñ Mahmoud faal ci këyit gi nga xam ne nii ci la bind nag ak njabootam mi ngi wax ne soxna su tudd soxna ay satu Neex dëkkoon nag ci réew mi nag di Mauritanie ci dëkk bii nag di Garak ñeenti bant nag la am ak moom muy ku ñuy wax sëriñ Moodu Mamoun Fall mi mu fayee sëriñ Moodu Mamoun Mbàkke mu maam Cheikh Anta Mbàkke ak ku ñuy wax soxna Faati Fall mi mu soxna maam Faati Mbàkke mi nekkoon Mamoun Mbacke moom maam Cheikh Anta Mbacke ak ku ñuy wax soxna Mariama Fall ak ku ñuy wax Serigne Ndiaga Fall ñeenti bant yi nag la am ci soxna Aysatu Neexa dëkkoon nag ci réew mi nag di Mauritanie ñeenti bant yi nag mu am nag ci soxna Aysatu Neexa Serigne Mahmoud Fall nag mi ngi ñuy wax ne ci seen tuutànk nag la ñu delloo nag ci suñu boroom soxna sii tudd soxna Xari Jaw ñetti bant nag la am ak Serigne Mahmoud Fall muy ku ñuy wax Serigne Cheikh Ahmadul Kabir Fall ak ku ñuy wax soxna Roqaya Fall ak ku ñuy wax Serigne Cheikh Fall waaye Serigne Cheikh Ahmadou Kabir Fall ndànk nag la ñu delloo nag ci suñu boroom soxna suñ tudde soxna bandañ Birahim soo delloo nag ci mbindum sëriñ Mahmoud Fall mi ngi wax na nag soxna si nag seex na ñeenti yoon seex bu njëkk bi mooy kam faye cheikh Mamadul Basiir Mbàkke di sëriñ Basiiru Fall ak sëriñ Sayer Fall ñaareelu seexu soxna bandañ Birahim mooy ku ñuy wax sëriñ soye bu Fall ak soxna Mariama Fall ñetteelu seexu soxna bandam Birahim mooy ku ñuy wax soxna Farmata Fall ak soxna Astu Jama Fall ñeenteelu seex nag bu soxna banda Birahim mi seex mooy ku ñuy wax sëriñ Tallub Fall ak ku ñuy wax sëriñ sëriñ moor faal birahim kon nag njaboot gi nag la soxna bandam birahim am ak kii di sëriñ mahmoud faal mu ñeent yoon nag yu mu am doom te yëpp itam nag da koo cheikh sëriñ mahmoud faal nag mi ngi ñuy wax ne soxna banda birahim mii mbooleem doom yi mu am ak moom nag kenn dong nag moo ci dund ñi ci des ñépp nag ci seen tuut tànk nag la ñu dellu soxna am sii nag di soxna mariama seen juróom benn bant nag la sëriñ mahmoud faal am ak moom muy kam faye taawu xaadim rasul ba di sëriñ moustapha faal kam faye magam ja di sëriñ buuna faal kam faye doomu xaadim rasul ba di cheikh mamadul faadal mbàkke kam faye caatum ma di sëriñ Murtada Fall sëriñ Basiiru Fall di kam faye doomu xaadim rasul ba Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ba soxna Ndey Fall di kam faye soxna Faatija Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa xaadim rasul soxna Mariama Seen mii nag soo delloo ci mbindum sëriñ Mahmoud Fall mag ñi wax ne nag juróom benn bant nag la am ak moom ñaar ña nag dañoo génn àdduna ci seen tuut tànk muy sëriñ Buuna Fall ak Cheikh Mamadul Faadal Fall soxna suñ tudde soxna Aram Diop benn bant nag la am ak sëriñ Mahmoud Fall muy ku ñuy wax sëriñ Talib Fall sëriñ Talib Fall mii nag soo delloo ci mbindum sëriñ Mahmoud Fall mi ñuy wax ni itam nag ci tuut tànkam nag la ko ñàkk soxnaam si ñuy wax soxna Adama Fall ñaari bant nag la am ak sëriñ Mahmoud Fall muy ku ñuy wax sëriñ Aline Fall tam faye ko sëriñ Aline Sow bu Daaru Sow ak ku ñuy wax soxna Muslimatu Fall tam faye ko soxna Muslimatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim waaye sëriñ Mahmoud Fall mi ngi wax ne soxna siiti soxna Adama Fall benn doomam nag ci ak tuut tànkam nag ba ko ci atum 1968 ñii nag ñoo nekk nag ak njaboot gi nga xam ne nii nag ñoo ko fi mujj ginnaaw mooy ku ñuy wax sëriñ Cheikh Fall sëriñ Moustapha faal mi nekk ab xalifaam sëriñ Soye bu Fall sëriñ Murtada Fall soxna Ndey faal mi nga xam ne nii moom la faye soxna Faati Jàmbàkke bintu Cheikhul Xadim sëriñ Basiiru faal ak kii di soxna Muslimatu Fall ku amoon ko lëre la nag ak njabootu ku baax ki sëriñ Tubaa Cheikhul Xadim moo xam njabootu Cheikhul Xadim gi wala cheikh yi toppoon ku baax ki sëriñ Tubaa Cheikhul Xadim ñu mën cee ràññe Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu ku baax ki sëriñ Tubaa Cheikhul Xadim ku jaxasoo woon nag sëriñ Mahmoud Fall la ndax ginnaaw bu fi ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadim bàyyi ko ci atum 1927 sëriñ Mahmoud Fall léppam nag la jëloon jébbal Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke def ko ku baax ki sëriñ Touba Xadim Rasoulam Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke dëkkoon naag sëriñ Mahmoud Fall ci bayti ba tax na doomu sëriñ Mahmoud faal bi ñuy wax sëriñ Cheikh Xari Jaw ci bayti sax la feeñe jamono ci bi fi sëriñ Mahmoud Fall nekkee ak Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke kóllëre googu mu amoon nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sax tax na tudde na Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke doom ndax sëriñ Moustapha Fall bant mi mi ko wuutu xalifab xaadim rasool bu njëkk nag la ko tuddee di cheikh mamadul moustapha mbàkke mu rëy nag nekk nag ci loxoy cheikh mamadul moustapha mbàkke ba ni cheikh mamadul moustapha mbàkke génnee àdduna ci atu 1945 mu jël lépp nag jébbal nag ñaareelu xalifa xaadim rasool di cheikh mamadul faadal mbàkke féeteeg cheikh mamadul bachir mbàkke ci njaareem ci njaareem googu sax la nekk ci ron cheikh mamadul bachir mbàkke ba ci atu 1965 ci 1965 nag la ko cheikh mamadul faadal mbàkke jëlee wetam ci bi mu nekkee njaareem ci ron cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul cheikh mamadul basir mbàkke moo a kër soxna faati ja mbàkke bintu cheikhul xadim mook cheikh mamadul basir nag ñu jaxasoo woon lañ na cheikh mamadul basir mbàkke defoon na xarit kii di sëriñ mahmoud faal sëriñ woon na ñaari yoon doom cheikh mamadul basir mbàkke ibnu sëriñ tubaa xaadim rasul ndax nag ak kóllëre nag guñu amoon ba tey kóllëre ak sëriñ mahmoud faal ak mu mamadul basir mbàkke bi ko cheikh mamadul faadal Fall Mbacke indiwaatee Touba ci 1965 Cheikh Mamadou Bassir Mbacke itam nag moo ko mayaat kër nag ci Touba ba tax na sax ci kër googu nag la génnee àdduna mooy kër Serigne Mahmoud Fall gi jàkkaarloog station 28 bi ci 1968 digganteem ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacke diggante la nag bu jaxasoo woon lool ba tax na ma Cheikh Mamadou Fadal Mbacke moo ko jëlee njaareem ci 1965 indi ko Touba nag dël ko fii Serigne Mahmoud Fall tudde na Cheikh Mamadou Fadal Mbacke doom ndax Serigne Fallou Fall moom Serigne Mahmoud Fall mi mi ngi fi woon te cheikh mamadul faadal mbàkke la ko tudde woon ku jaxasoo woon ak sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke la moom sëriñ mahmoud faal ndax soo delloo ci téere bi sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke bind di makk tabi di téere bi nga xam ne nii ci la sëriñ tuuba cheikh abdul ahad mbàkke doon dajale nag mboolem bindum ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul moo xam ndénkaanem ku baax ki sëriñ tuuba xaadim rasuul moo xam lettre yi sëriñ tuuba xaadim rasuul doon bind mag ñi moo xam ay xasida yu sëriñ tuuba xaadim rasuul bind moo xam ndono lu sëriñ tuuba xaadim rasuul bind ci makkata boobu sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke doon dajalee nag mbind mi soo ca demee nag sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke mi ngi bind di wax ne am na bis nag ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul dajale woon mag ñi nag ci njaareem ginnaaw bu mu dajalee mag ñi nag ci njaareem sëriñ Mahmoud Fall nekkoon jàngkatu xasida nag la waxoon na nag yëkkatil nag ay xasida bi sëriñ Mahmoud Fall tàmbalee jàng xasida nag la ko Seexul Xaadim nag di ko wax ne nag jàngal nag yaa xayra day fin ginnaaw bu sëriñ Mahmoud Fall jàngee xasida gi ba noppi la ko Seexul Xaadim nag doon ko wax ne nag teg ca mbokkam ma di yaasal bu saaraati ginnaaw bu mu ko jàngee ba noppi nag la ko seexul xadim nag doon ko xamal ne nag ñaari xasida yi mi ngi bokk nag ci xasiday géej gi ndax bi ma nekkee ci géej gi laa ko bind genn xasida gi nag maa ngi koy bind nag bi weeru koor wi teroo ga ca des itam nag maa ngi koy bind nag ci bi weeru koor gi tàggatoo sëriñ Tuubaa Seex Abdul Ahad Mbàkke nag mi ngi wax nag ci téeréer boobu nag di Maktabi di wax ne moom de musta gis ñaari xasida yooyu kuñ móole genn xasida gi te móoluñu ga ca dese wet ga mu ne lii nag sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag séq na ko sëriñ Mahmoud Faat ci njaaréem ci benn bis nag bu mu bëggoon a waxtaan ak mag Mm. te keroog nag waxoon na lii nag sëriñ Mahmoud Fall ñu teewlu ci sëriñ Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke bindee loolu ci Maktaba bi ngir nag di ci seedeel nag sëriñ Mahmoud Fall ci jege nag gu mu jege woon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ñu teewlu ko fi lmajmuwaati lmustamila ala ayubati wa wasaaya Cheikh alxadim wa fataawihi ana Cheikh alxadim xaraja saata yawmin li liqaa'i nnaasi wa daa rajulan qad taawada alxiraata li kasri min alqasaidi inda xurujihi bi isnin minhu radiallahu taala anhu ismuhu Mahmoud Fall fa amarahu bi xiraati yaa xayra dayfin falamma atammaha xaala lahu iqra shaqiqata وقتها سيئات البشارات فلما أتم قال إنهما من البحريات فالأولى قلتها عند رؤية الهلال من رمضان والثانية قلتها عند انطلاقه ku jaxasoo woon ak Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke la ndax bi mu génnee àdduna ci atum 1968 Serigne Touba Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ci armeer yu mag yi ci atum Serigne Touba Khadim Rasoul bi di Cheikh Mourtada Mbacke mu Serigne Touba Khadim Rasoul kii di Serigne Mahmoud Fall tudde na ko doom ndax Serigne Mourtada mi ngi fii Serigne Soye bu Mbacke mu Serigne Touba Khadim Rasoul ku jaxasoo woon ak Mahmoud Fall la ba tax na sëriñ Mahmoud Fall tudde na ko doom ndax sëriñ soye bu Fall sëriñ soye bu Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul la ko faye noonu mu ko amee woon ak njabootu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul gu góor gi ni la ko amee ak njabootu Xaadim Rasuul gu jigéen gi soxna Faati Ja Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon ak sëriñ Mahmoud Fall la ndax bi sëriñ Mahmoud Fall nekkee njaareem te Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke dëloon ko fa kër gi mu amoon ak kër soxna Faati Ja Mbàkke bintu Cheikhul Xaadim ñoo dendoon ba tax na tudde na ko doom soxna Faati Ja Mbàkke bintu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul muy soxna Faty Dia Fall ñu gën koo xam ci soxna Ndeye Fall soxna Faty Dia Mbacke bintu Serigne Touba Seexul Xadim la ko tuddee bi mu jaxasoog soxna Faty Dia Mbacke kii soxna Faty Dia Mbacke doomoo woon di Serigne Basiiru Mbacke Moor ku jaxasoo woon ak sëriñ Mahmoud Fall la ndax soxna Faty Dia moo tax soxna Muslimatu Mbacke bintu Serigne Touba Xaadim Rasuul sëriñ Mahmoud Fall tudde na ko doom ndax soxna Muslimatu Fall moom Serigne Mahmoud Fall soxna Muslimatu Mbacke bintu Seexul Xadim la ko tuddee seex yi toppoon ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul ñu ci bare bare bare bare bari wóllëre sëriñ Mahmoud Fall lañ woon ndax ak jaxasoo gu ñu amoon ak bëgg nag guñ ko bëggoon ndax bëgg nag gu ko sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul bëggoon moom sëriñ Mahmoud Fall ba tax na daana ko jàngloo saa su ne njàng mu neex moomu nag sëriñ Mahmoud Fall daa def taxoon na nag bépp mag nag bu nekkoon ci ron ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul sa xel nag daawul jóg nag ci jàmbaari Seexul Xaadim bii nag di sëriñ Mahmoud Fall loolu itam nag tax na mbooleem seex si nag kóllërey sëriñ Mahmoud Fall lañ ñu mën cee ràññe sëriñ Alioune Sow ku jaxasoo woon ak sëriñ Mahmoud Fall ci atub ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ba tax na sëriñ Alioune Sow tudde woon na doom sëriñ Mahmoud Fall sëriñ Mahmoud Fall itam nag tudde woon na doom sëriñ Alioune Sow bu Daaru Sow sëriñ Mouhamadou Diop Dagana bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon ak sëriñ Mahmoud Fall ba tax na nag séqoon nañ lu bare bare bare bare bari ci dëkk boobu nag di njaareem sëriñ Habibu Mbàkke imam moom itam nag ku jaxasoo woon ak sëriñ Mahmoud Fall kóllëre gu sëriñ Habibu Mbàkke imam amoon nag Cheikh Mamadou Bachir Bachir Mbacke te sëriñ Mahmoud Fall nag nekk nag gum nekkoon xaritu Cheikh Mamadul Bachir Mbacke loolu itam nag taxoon na mook sëriñ Habibu Mbacke imaam amoon nañ ak jaxasoo lool lool sëriñ Abdou Latif Mbacke moom Maam Mor Jaara ku jaxasoo woon ak sëriñ Mahmoud Fall la ndax ak kóllëre sëriñ Xaasim Mbacke bu sëriñ Afiya Mbacke moom Maam Mor Anta Sali Mbacke ku jaxasoo woon ak sëriñ Mahmoud Fall la ndax ak kóllëre sëriñ Ibnu Amar moom itam nag ku jaxasoo woon ak sëriñ Mahmoud Fall la ndax Xaadim Rasuul sëriñ Alioune Amar Touba Xaadim Rasul ku jaxasoo woon nag sëriñ Mahmoud Fall la sëriñ Hassan Bousso moom sëriñ Mbàkke Bousso ku jaxasoo woon nag sëriñ Mahmoud Fall la ba tax na sax sëriñ Mahmoud Fall foboon na sax lu ëpp ci ak njabootam jébbal leen sëriñ Hassan Bousso ngir mu jàngal leen alxuraanul karim ginnaaw bu fi sëriñ Hassan Bousso bàyyi ko njabootu sëriñ Hassan Bousso nag dundal nañ loolu itam nag ci njabootu sëriñ Mahmoud Fall njabootu sëriñ Mahmoud Fall itam nag dundal nañ loolu Assane Bousso itam daa fa fekk sëti sëriñ Mahmoud Fall ndax ak kóllëre nag gu seen ñaari waajur yi amoon sëriñ Saaliw Lo bu njaareem moom sëriñ Mor Absa Lo ku jaxasoo woon nag sëriñ Mahmoud Fall la ndax ñoo bokkoon nekk nag njaareem sëriñ Abdou Karim Dieng moom sëriñ Mouhamadou Dieng Balla Faali ku jaxasoo woon nag sëriñ Mahmoud Fall la ngir Xaadim Rasuul sëriñ Moulay Bousso di doomu sëriñ Mbàkke Bousso moom itam nag ku jaxasoo woon nag sëriñ Mahmoud Fall ndax ñoom ñaar fekkante nañ ci ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ci njaareem sëriñ Bamba Serigne Mahmoud Fall ñoom ñaar ay doomi gànnaar lañ te ñoom ñaar itam nag ñoo bokkoon nekkandoo ci ëttub ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul loolu itam nag taxoon na ñu am ak jaxasoo lool Serigne Baara Ndiaye nekkoon itam nag noddukat nag ci jumaay ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul ku jaxasoo woon nag Serigne Mahmoud Fall ngiru kóllëre Serigne Moustapha Sy nekkoon jànkatu xasida moom itam nag ku jaxasoo woon nag Serigne Mahmoud Fall ndax ñoom ñaar kat ñoo bokkoon nag liñ doon yëngutu nag ci ëttub ku baax ki Serigne Touba Xaadim Rasuul muy jàng ay xasida jaxasoo woon ak sëriñ Mahmoud Fall la bëgg gum bëgg nag sëriñ Mahmoud faal ak cofeel itam nag gu sëriñ Mahmoud faal amoon moo tax itam nag ñoom ñaar jàppante woon nañ ak kóllëre ngir ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam nii nag sëriñ Mahmoud faal am naa ak ñoom ak kóllëre ku bëgg a lim ku sëriñ Mahmoud faal amaloon kóllëre daa juum soppoon nañ ko ngir Xaadim Rasuul soppoon nañ ko itam nag ngir xasiday Xaadim Rasuul yi muy jàng soppoon nañ ko itam nag ngir bëgg nag ko Xaadim Rasuul bëggoon mu wéy itam nag des nag di jàng nag ay xasida loo xam ne nii ko baax ki sëriñ tubaa xaadim rasool nag moo ko joxoon doomi garag gi di sëriñ mahmoud fall mi ngi génn àdduna bisub gaawu juróomi fan ci weeru safar ci atum 1388 ci gàddaay gi gaawu juróomi fan ci weeru safar ci atum 1388 ci gàddaay gi dëppoog muy samedi 4 mai 1968 samedi 4 mai 1968 ci xilaaf ak ki fi nekkuloon sëriñ tubaa xaadim rasool di cheikh mamadul faadal mbàkke doomam ju ñuy wax cheikh mamadul bachir fall moo ko yëgal cheikh mamadul faadal mbàkke cheikh mamadul faadal Fall Mbacke moo wax rakkam ja Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke mu taxaw nag jàmbaari ku baax ki Serigne Touba Khadim Rasoul jooju nag di Serigne Mahmoud Fall ñu jébbal ko boroomam nag ci armeer yu mag yi ginnaaw bu mu génnee àdduna moom Serigne Mahmoud Fall ba Cheikh Mamadou Fadal Mbacke wax rakkam Serigne Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke mu taxawu ko ba noppi Serigne Cheikhouna Fall bokkoon itam nag ci ñi jege woon Cheikh Mamadou Fadal Mbacke la Cheikh Mamadou Fadal Mbacke yónni nag ci kër Serigne Mahmoud Fall doon xamal njabootu Serigne Mahmoud Fall gi di leen wax ne ñoom da ñàkkuñu Serigne Mahmoud Fall te loo xam ni itam nag war na ci sëriñ Mahmoud faal ñoom buñ ci def dara moom ma cheikh Mamadou Fadal Mbacke ak magam soxna Faati Ja Mbacke bintu seexul cheikhul xadim lépp lu war ci sëriñ Mahmoud Fall ñoom ñaar ñooñu nag la war cheikh Mamadou Fadal Mbacke keroog itam mi ngi yóbbante sëriñ ceex na Fall di ko wax na bu demee mu wax njabootuk sëriñ Mahmoud faal gi di leen xamal ne ku am tawféex itam nag dem na wuy ju suñu boroom ñam fekk itam nag danañ xam ne am na tawféex lépp lu ko waroon ci ndigalul ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasul ma nga ca woon ndax guddi giñ mujjee gis ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasul sëriñ Mahmoud Fall jàng na nag ci ëttub ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul moom Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke samedi tey jii ñu mujjee gis sëriñ Mahmoud Fall démb ci àjjuma ji sëriñ Mahmoud Fall jàng na itam nag ci ëttam kon ginnaaw bu fi Cheikhul Xaadim bàyyi koog léegi sëriñ Mahmoud Fall mu ngi ci ndigalam ci suba ga nag di dimanche ja sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke ñëw na itam nag ci kër sëriñ Mahmoud faal ngir jaale si njabootu sëriñ Mahmoud Fall gi wàccee na fa keroog nag ab kaamil fan ya ca tegu itam nag woo na njabootu sëriñ Mahmoud Fall gu mag gi muy sëriñ Cheikh Fall Serigne Moustapha Fall bant mi fi nekk doon leen xamal na nag li tax ma woo leen ci sama kër gii damaa bëgg nag ay seede booba nag Serigne Touba Cheikh Soye bu Mbàkke nag fekke na ko mu doon leen xamal na nag yéen njabootu Serigne Mahmoud Fall gi ñàkku leen Serigne Mahmoud Fall ñun doomu xaadim rasul yi kay ñoo ñàkk seen waajuro Serigne Mahmoud Fall loolu itam nag taxoon na Serigne Touba Cheikh Soye bu Mbàkke saa su ne daana yónnee xaalis nag ci njabootu Serigne Mahmoud Fall gi soxna Muslimatu Mbàkke itam nag ci fan yooyu nag daana fa ñëw di xool njabootu Serigne Mahmoud Fall gu jigéen gi rawatina nag soxna yim fi bàyyi naka la tax taxawoo sëriñ Mahmoud Fall ci santaane nag bu suñ borom santaane nag ku sa borom kër nag génn àdduna ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ Mahmoud Fall li ko dale nag ci samedi 4 mai 1968 ba samedi 4 décembre 2012 sëriñ Cheikh Fall Khary Diaw nag mooy ki ko njëkk a wuutu 4 décembre 2012 ba nëgëni ñaareelu xalifa sëriñ Mahmoud faal nag mooy sëriñ Moustapha Fall bant ñu koy ñaanal nag suñ borom guddal aw fanam nag te wëral ay cëram te ba ko fi nag ci bopp njabootub sëriñ Mahmoud Fall gi ak mbooleem nag ay rakkam muy sëriñ Soye bu Fall sëriñ Basiiru Fall sëriñ Muxtada Fall soxna Ndey Fall mi mu faye soxna Faatija Mbàkke bintu Seexul Xadiim ak soxna Muslimatu Fall sëriñ Mahmoud Fall nag amul bis nag buñ koy taxawu ci li ñu tudde nag ak màggal waaye njabootam gi nag dañoo jàpp ne saa bu asamaan setee bis la nag bu ñu war a fàttaliku sëriñ Mahmoud Fall ñuy ñaan ca jàmbaari sëriñ Tubaa Seexul Xadiim ba ke sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul tudde woon Mahmoud yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk